waaw ñun dañoo demoon Touba yóbbu benn koor bu ñëwee ba fii ci doraan bi chauffeur bi dafa freiné amul dara waaw amul frein léegi léegi bi moom même ñàkk am frein léegi léegi booy booy nag léegi bi mu yëgee doraan bi ni mu dalee ci doraan bi oto bi dafa baaje mu perte contrôle léegi bi mu pertee contrôle léegi xarkat baa ngi ñëw xarkat bi ñëw mu mu mu wàcc dafa bëgg a wàcc oto bi léegi xarkat bi ñëw mu bëgg a dawaat daay dajee xarkat bi mu dajee xarkat bi nag arrive bi mu tamponné xarkat bi dafa génnaat di jëlaat tali bi bi mu jëlaat tëli bi léegi camion beneen moom dañoo teel a moom daal di freiné bi ñëwee ci camion bi ndànk lañ ci dal que am na ay gaañu gaañu camion bi moo tax waaw am na am na ay blessure kay hmm. ah, waaw ñaata la ñuy hmm. na ñaar yu garaaw nag moom benn moom xaraal ma loolu benn blessé moom ci loxo bi la dafa garaaw trop moom boobu rek moo ci garaaw loolu ci des yëpp moom ay xoos xoos la rek